B52 ngi noonu doomu buur baa ngi noonu Bombardier borom Petite Côte bi Thank you. waaw euh, euh, innovation bi mooy ku mel ni sama xarit moo ne fa Eric Fass boo gisee organisation bi nga dugal na si loxo kon euh, ñu ngi wax bienvenue defe naa bi mu ñëwee ba léegi day yokk rek wàññi voilà kon organisation boo gisee ne vraiment jaar na ñu ko si ñaanal baax a baax. mais dafa mel ni yow mi fekk si buur tey ngay champion hors pair ak lu bépp accepté la sa set na. waaw tey maa dalal gan ñi tey maa leen dalal. waa gis naa ngay waaw <laughs> tey tey tey maa dalal gan ñi. Let's